dañu bëgg a waxtaan tuuti ci actualité maanaam mm, ñu ñu ñu waxtaan nag après doo ko ñëw ci yow ak Kona dañu gis réew mi maanaam bañkat yi lañ koy woowee ku ci mel ni Kana Kona mën nañ ko tuddee bañkat hmm. euh, ku ci mel ni yow mën nañ tudd mën nañ tuddee bañkat mais xaar rek maa ngi ñëw rek mais ci côté làmb ji ñu waxtaanee laay wax xam nga tey Kona su fekkee dafa nekk ni mbër la mën naa ko te Kona mën naa ko citer Modou Lo mën naa ko citer Siteu ah. ak ñeneen i mbër yoo xam ne ay bañkat lañu ci làmb ji ñenn ñi ñi nga xam ne dem nañ ba seen xol man a mayetu leen ko bàyyi nañ làmb ji de gàddaay dem bitim réew liggéey hmm, bari euh, ñu gis ni Assane réewum Sénégal ku nangu te wu ci état ak koo mën a doon ak ci branche banqaas boo mën a nekk hmm. boo gëmul sa bopp dara di nga fi bàyyi li ngay liggéey dem sa yoon hmm. parce que dañ lay xeex ca la ngay nekk sony bu loolu fii loolu ay ay wax la kenn ku nekk yaa ngi liggéey sa liggéey jàpp sa bopp yoonu état nekku ci surtout nag si wàllum làmb ji. non mais da ñu indil ci d'une manière générale rek. manière générale. waaw maanaam si wàllu tubaab du la dégg dégg naa ko manière. loolu mooy lan luy manière générale mm, ndànk rek manière générale son yi maanaam bu fekkee ne ñi nga xam ne dañuy taxawal ay société waaw mën nañ leen tegal lu ñu attunut. ba société ba daanu. yow loolu ñëwoo ah, fi di ko gas ci bugaan ngay dani ñëw si nangu naa tegoo ci bugaan ngay dani nangu naa ana jooni jooni jooni jooni dañoo jaay bugaan doole ana ana vite fait dañ koo jaay doole ana Sid Lamine Niass jaay doole ah waaw kon nga ne amul nag mais loolu lépp dama siy dikk waaw ñëwal loolu amul mais damay bëgg nga ne mi boo gisee jooni jooni li ko daane mooy bugaan dafa nanguut a dem raas ji si gouvernement bi ñu kon kay mooy li ma lay wax mais li nga may wax bu ko jëmale si làmb ji mais dama ni lépp laa wax waxuma benn métier lépp xam nga kii Assane kii dencal dina ñëw. voilà non bàyyi ko mu def bàyyi ko mu def damaa bëgg non damaa bëgg affaire làmb non damaa bëgg affaire làmb mu bañ see génne ay damaa. làmb xanaa daa bokkul ci Sénégal. non non non non làmb da ngay wutub xaalis da ngay liggéey sa liggéey sa xaalis ngay wut. bugaan wutul xaalis nga ni. non non bugaan wutut xaalis si wet xoolal sànq. Assane wuy ma lii du affaire commune. non non bu demee bu demee Assane bu nii nag ma woo Sanjoogu mu ñëw toog dañuy waxtaani sérieusement sérieusement lay wax mais moom attaqué ko ci ay argument mu tontu la mais dama ne. mais damaa bëgg nga boole si làmb ji. làmb ji dañuy bëre ñëwal làmb ji laa la wax ñoom ñi dañuy bëre. waaw koo ñeme nga ni kii laa ñeme nga ñëw tibb suuf xëpp ko jël am dën dóor ko dëkk ko. Mhm. dën na dóor ko waaw. Ah, ñu ne eh diw ak diw combat boo ko defee seet nag sa jël ñu ne diw ak diw combat la promoteur yi dox ko tëdd tëggu ko. Mhm. mais dangay tëdd sa kër di lekk sa ceeb entraîné woo toog di di dem di def say émission di def say tiktok di raay sa deq naan dañ maa bañ a tëgg ndax lan Euh, damaa faral faratu ak opposition bi opposition laa opposition kenn mënu ko dugal si làmb ji amul mbërum opposition ak mbërum pouvoir amut si làmb ji. amut përëb barki yàlla amut. barki yàlla amut maa ko wax. laaj naa leen defi amul mbërum pouvoir ak mbërum opposition xam nga lan moo am nga am nga am fit ñeme dem dëkk am mbër ni yow damay bëreeg yow di dem si làmb ji ñu xam ne kii mbër la tëggal la combat nga bëre waaye dama ni la promoteurs yi defuñu. bay am na mbër yi fii tudd am na mbir yoo xam ne ñi ñëw tudd tur Ousmane Sonko amut. Ah wër na yàlla amul amul benn mbër bu ñu tere nga tudd wala wala nga yaakaar ne. maanaam di ko manifester comme ni Kona jëlee ay position comme ni mu jëlee position waaw Kona mi du mbër man mbër yi laa wax mbër yi bëre. Kona mi ba muy bëree bëree na ba ba muy bàyyi bàyyi na Kona ex activiste la du mbër. <laughs> waxaat ko lan laa nga ne lan laa. non damaa bëgg Sénégal yi damaa bëgg Sénégal yi xam ne Kona bëriwul. lan la Kona mi boo ko fayoon dix jox ko combat du jël. Hmm. Kona yaram mi moom la gën a bëgg si àddina <laughs> yaramam moom moom la gën a bëgg si àddina. ak lekk lu neex lekk lu nooy. waaw fépp foo xam ne nit ñaa nga fay dem mu ñëw fiiri dënn taxaw. naan man la mbëru askan wi. si mbëru askan wi mbëru askan wi xanaa doo bëree askan wi duñ ko gis. d'accord. Ah. waa léegi Kona Kona nii ah, demal fii ganja gaan kii bi. mbappat yaa ngi fi mbër yëpp nga fay bindu booba combat xalaatu la dem di bëre mbappat hmm. du bëre mbappat ñimewu ko xalaatu ko bëri woo mbappat bëri woo arène toog naa dañ maa bañ a tëggal ndax mbërum mbërum kii laa mbërum opposition waaye kon du bontoon nit ñi mbërum opposition daa am saa yi lii moo ma metti man li ma metti mooy mbërum opposition laa moo tax duñ ma tëggal promoteurs yi nekk nañu fi kenn promoteurs yi xaalis la ñuy wut ku ñeme nit boo nee kii laa ñeme ñu tëggal leen nga bëri waaw d'accord waaye naa li nga wax nag léegi euh, comme léegi jóge nga ci Kona amul licence yaa ko waxoon su ngeen su amul licence. maa maa wax ne dama saa jóge. amul licence. Kona amul licence. Hmm. waaw. Kona amul écrit. waaw. Kona amul menaceur. Hmm. waaw. Kona du entraîné. Hmm. <laughs> Kona du dem si du dem si am mbër muy bëree seen écrit mu ànd si di tuus. boo ko ba ma gis wax ma. xam nga mosoo gis am mbër di bëre ñu ne kii ikiri ñoom kooñaa ne nga gis kooñaa nekk si biir di tuus mosoo gis kooñaa ñëw si làmb dëkk am mbër ni kii laay bëreen mosoo gis sax kooñaa si làmb këram lay toog di lekk di naan ataay di raay ab deqam naan mbërum peuple bi rek ku am sa dix mille mayel diw <laughs> ku am dëgg ñëwal ma wax la lii lii lii ñu bëgg ko bàyyi muy dem man loolu laa du seetaan man mii lool duma ma ko seetaan mukk ci àddina nit ñi naa ne wax dëgg kooñaa mii du mbër ah, ah. tey fii du neppaat du jome diglu ma rek léegi comme wax nga li nga wax ba pare nag léegi dama bëgg na nga ànd ngor comme ni la dégloo déet waa xaaral rek si kaw mu teg ko si yoon waaw dama waaw dama bëgg ndax man dama laaj ay quelques points waa léegi dama bëgg sénégalais yi si biir waa d'accord dama bëgg sénégalais yi ñu déglu itamit comme dañuy fay di seetaan itam nga may leen ñu déglu attentivement ñoom tamit ñu déglu ñu loolu laaj mbër la wala du mbër waaw non xaaral rek bàyyi rek ma dina am samay question <laughs> dina am samay question après dinañ mais bàyyi na mbëree moom waaw dinañ ñëw ci loolu te li ko téye bëreeg yépp mi <laughs> kàddu gi bu mu fa yàgg ndax dama am na ma bëgg a wax. waa d' accord si Kona mii dama koo xam. waa d' accord ñëw dinañ ñëw léegi Kona. ginnaaw bi yaa ngi wax sànq bi ngay nuyoo. Mm. man defe naa li tax ma xam la benn discours bu bu bu am solo bu ma doon déglu ci yow. Mm. ci ay jamono ma teg ko ci Walf gannaaw ba sax la yëg ni yaa ngi jokkoo ak saa mu ne ma Kona seetaan na affaire vraiment kontaan na. Mm. bi ma la seetaanee dama ne it tamit. maanaam mbër est-ce que am na xel mu mel ni man xaw ma ko woon. di yëgoon naa ne mbëri ay intellectuel la. parce que euh, la euh, moo la war a xamal ni du mbër waaw déglu rek ba ñëw rek mais itam façon bi nga ko doon dégager sa discours bi nga yoroon mhm. laa xalaatu ni mbër amul boobu léegi bala ñu ñëw ci Baye Assane ak yi mu doon wax yëpp lan nga jàpp ni moo tax ku mel ni yow ak ñeneen ñu ni mel bu ñu jëlee ay engagement ci politique te ànduñoo ak état ñu leen di xeex waaw euh, damay rafetluwaat tamit euh, Baye Assane lu mu wax yëpp moom sama nit la. Ah, donc te am na droit am na. droit wax bu dëgg ñëwee nga wax waaw Assane xoolal mais baal bu déglu yàq débat mais bàyyi ko. am na yàlla xam nañu yàqu ma mais d'accord bàyyi ko mu. débat comme ñun yàlla dogal na dañuy wax ci nit ñi. waaw di wax ni ñu xalaatee. kon duñ dàqal kenn xalaata. waaye ngir yàlla rek. la dégloo. nag ma dégloo noonu. dama la ñaar waaw mais da ngeen non non amul waa kaw sànq bi ngay wax. li ngay wax néewul baax na néewul li may wax dafa dafa tegu yoon. Ah, mais bu waxee yoon dinaa ne ma wax la rek waaw dama la. la nekk débat boo xam après ñi ñuy seetaan ñuy jéem. comme daan ah, moo ko waral de. waaw mais lii teel na. waaw léegi dama may ma wax wala lan la yow léegi da ngay da nag yow tam nag bàyyi ko mu développé léegi bu paree yow di nga ñëw ci fi nga àndul ak moom non te yàlla na émission bi egg wala léegi sooy bu waaw donc loolu damay gis ni rek man de wax dëgg yàlla maa ngi koy wax léegi ay dem benn Seneweb mhm. jóge nii donc maa koy wax ni ko am na mbër yoo xamante ni man jàpp naa ni sax ñoo ma gën a dëggu mhm. jàpp naa ni aussi ñoo ma gën a bëgg Sénégal mais xëy na man ni ma koy defee xëy na ñoom mënuñu ko defee noonu ndax dafa am ay risques yu ci nekk ñooñu ay mbër léegi bàyyi Assane waaw ko mu àggale xaar xaar loolu teel na sax waaw baax na <laughs> xam nga man Assane euh, maanaam yow doo adversaire am yow chroniqueur nga ci kër gi waaw moo tax waaye dama kaa dëgg tey waaw déglu ma non non dimbali ma rek nga déglu ma wax dégg nga <laughs> am na ñoo xamante ni euh, li may wax ñoo ma ko gën a xam ñoo ma gën a jekk ci wax ko ñoo ma ëpp dayoo. mais gën ma sax bëgg Sénégal man jàpp naa ni. wax dëgg yàlla am na mbër yoo xamante ni ñu ngi may encouragé bu baax te pourtant ay mbër yu mag lañ. mën naa ci jël exemple Gris Bordeaux. pourtant amoon nañ ay contentieux fu ne jaar nañ fa parce que man bu ma d'accordul dama naan d'accordu ma mm. li ma gis d'accordu ma wala ma gis ni ngay doxalee du noonu dama la koy wax wax naa la ko ci si biir néeg nangu woo ma déglu damay génn sur la place publique wax ko parce que li ngay doxal askan bi nga koy doxalal du sa yëfu bopp mm. soo doxalee sa yëfu bopp sa kër ak say mbiru bopp suñu yoon newu ci mm. mais lépp lu ñëpp bokk moom dañ koy teg ci yoon rek parce que loolu moo ñu boole mais yàlla dogal na daf may encouragé bu baax maa ngi koy wax léegi Sénégal te dama koy waxaat te xam naa ni gënuma koo bëgg Sénégal xam naa ni gënuma koo xam dëgg mais xëy na position bi may mën a jël ak ni ma ciy mën a defee loolu man la. dafa am loo xam ne man la maanaam ça ne veut pas dire man damaa mel ni ñëpp dañoo war a mel ni man. non dama jàpp ne ma li may def sama bopp laa koy defal. dama jàpp ne li may def sama gëm-gëm la keneen ku ko amul dama lay bàyyi mais teewul dama ciy nekk. mais nag ça ne veut pas dire tamit duñ leen wax ni ah mm-hmm. waaw ça ne veut pas leen wax ni tamit yéen mbër yi war nañ leen mën a dégg nag. ndax askan wi bu ñu sonnee war nañ leen mën a dégg. ñu koy laaj am nañ ci droit. parce que ñoom it dañoo taxawu mbër yi fépp. ndax mbëri tey bu du woon askan wi duñ doon lu doon waxuma sax mbëri fii ku doon ci àdduna Sénégal rek loo doon rek askan wi ñoo la ko def kon fu askan wi seen bët xonkee war nga nekk la voix des sans voix mooy kàddu mhm. fi mu egg yàlla moo la ko dox muy dayoo mhm. débat bi nee na moom ma natt naa li ma jox gis naa ko fii lim la jox it léegi nga ak yow ya nga jeexal ko pour mu joxaat ma te waxu si lim la laaj non moom lim ma laaj laay wax ni man dama bëggoon ñëw ci yow mu naa ñëw ci li ma laaj ba pare na ñëw ci li mbër yi ak képp ku mu mën a doon ngay leader d'opinion yàlla moo la jox nga am kàddu te li tax mu jox la ko defe naa am na lu tax mooy pour nga fexe di wax li nga xamante ni moom la askan wi di dund mhm. même boo mënul sa attaqué kenn mais nga relaté comme ni ko Gris 2 defee na wax na képp kuy borom xel soo déggee fa mu waxee ah. di nga xam kii lan la bëgg a wax bu am xel la moom comprendre nga Gris 2 mhm. wax il est maanaam il est instruit boo ko déggee muy wax da ngay foog ni sa jàngara nasaraan ta nitu daara la day wone ni aussi nekkul école nga génne bu Jules bi wala nga génne feneen am nga xam-xam xam-xam wala mbër nga wala commerçant nga mm-hmm. wala koo mën a doon déedéet du loolu maanaam nit ki valeur lañ koy toppee mm-hmm. te bëri na mbër yoo xam dañu am valeur dañuy génn di wax pour la cause des faibles mm-hmm. wala tamit ni ñu koy waxee ak konaa ni mu koy defee du benn mais jàpp nañu ni ñoom ñëpp nag dañoo war a taxaw ci côté askan bi loolu mooy dëgg parce que lu ñu mënte doon askan bi moo leen ko def ñan ñooy askan wi d'accord askan wi mooy askan wi mooy askan wi mooy askan wi kii kii ñoom ñoo yaakaar ni da nga naan opposition wala pouvoir bi non foofu xaaral yow yàkkamti nga foofu dañu ngi ñëw léegi xoolal moom da doon développé askan wi wala yaakaar ni ku farak opposition bi yaa nekk si askan wi loolu xam nga xam nga nga ni nga ni nga dund gi cher na nga nga ni dund gu cher na nga ni dem dëgg dikk bi metti na nekkul da ngaa contre Macky Sall non non déedéet Macky Sall sax yow la war a déglu guvernement dafa war a waa déglu ma le président Macky Sall son excellence boo bëggee sama tegal la ko ci euh, dund gi cher na ki ko koy wax ak ki naan ko mbir mi doxul defe naa kooku moo ko bëgg kooku moo bëgg mu jooyantiku ndax ndamam dund gi neex lépp dox ndamu président la ndamal ñëpp la nag. Hmm. waaye moom moom lañ koy bind ci turam ndax bu fi jógee tamit dañ koy waxtaanee. kon képp ku naan la defal naa képp ku naan la sa bët bi suufa ngi si defe naa kook nga war a déglu mais nag nguur lu ci ëpp dañuy bëgg a déglu comme RTS di leen xamal man buntu RTS day taaba fees dell nawet jot ñu ne après la pluie c'est le beau te buntu RTS a ngi fees dell ak ndox loolu defee saa su ne su ngeen xëyee di waxal askan bi lu ñu dund ñu nit ci loolu lañ nekk ku ko deful dinañ taxaw nag ne la ah wax dëgg yàlla yàlla may na la kàddu nag waxal soo waxul it dinañ la laaj parce que loolu cër la te cër boobu ku ko am ci pénc bi bu ñu la déggul dinañ la laaj kon képp ku ñu di mbër wala loo mën a doon ñu lay laaj rek xamal ni cër bi nga am ci askan wi la soo amul cër kenn du la la génnal nga wax waaw man loolu laa